dafa am lu ma remarqué. parce que artiste yu bari dañuy guéné single doog a def album man bok ci samay recherche. man mm-hmm. naa ne musuma gis Daba Seye génnee single la ma waral lool. waaw man nak euh, single lu ni sax duma ko def mais xam nga nit bo juddo dafa am euh, am ay ay toftalaay yu nek ci yow. Mm-hmm. nga wara am carte d'identité nga am passeport. fekkee tukkikat nga bëgg nga dem ba am euh, nationalité. donc man dama préféré woon def trois albums yu wóor nga xamante ni dañuy xam ne Daba Seye mi confirmé na. Mhm. après luy ñëw nag ci ginnaaw yooyu lay topp. comprendre li ma bëgg a <laughs> nit bu juddoo. Mhm. fa am mhm. am passeport. fekk yàlla dogal na nga nekk tukkikat nga am nationalité. comprendre li ma bëgg a wax. comprendre donc moo tax ma def trois albums yoo xamante dama def sama sama sama confirmation. ok maanaam wane ni sama xel xelu xale la. Mhm. yàlla def na ni am naa ko mu mën produire. Mhm. di di ak sama jëkkër. comme premier album bi Babacar Lo moko def mais deuxième bi ak troisième bi yëpp sama jëkkër moko def. Mhm. donc dina def single peut-être sentir ben affaire woy ko mu génn mais ñett yooyu daal dama préféré woon def ko ba pare même bu dee damay def single sax après. ok mm. deux albums yi nga mujjee génn yi nga njëkk génne ban moo ci gën a dox premier wala deuxième. néew ma mu dox de parce que ñaari dox na <laughs> xam naa ci loolu ban moo ci gën a dox. waaw euh, instant bi maa ngi ci trois albums. waaw ñaari nga génnee. ñaari ma njëkk génne bi mu génnee dafa yàggul daal. Mhm. moo tax may laaj ñaari njëkk ya. waaw deuxième bi nag parce que première bi euh, Babacar Lo moo ko defoon. Babacar Lo. waaw man la bi mu ñëwee fii man la njëkk a produire mais mun naa jàpp ni nit ñi xam nañ morceau yooyu parce que boobu maa ngi soog a génn. Mhm. nit ñi di bëgg nañu bëggoon nañu gis lu bees. Mhm. mais deuxième bi dama ñëw ak beneen facette boo xamante ni jàpp naa ne ci leen gën a comprendre Tabaski yi. waaw ca album bi dafa génn xaaj bi sax jaayewu ma ko fii nag. Mhm. dafa génn une semaine ma dem Angleterre yóbbaale ci jaay ñibbisi def fi un mois dem Amérique. jaay après li ci desoon jox ko sama jëkkër mu yóbbu Espagne fan si nekk foofu yëpp jënd. Mm-hmm. mais bàyyi woon nañ fii ci Omar Gadiaga mu doon distribuer loolu tamit yàlla def ñu tiire deux fois yëpp jeex. léegi album bi moom nu muy demee booy li génnee da ngeen di wu fii ba pare doog a dem extérieur wala da ngeen di sóoraale ñi ne fii ak ñi nekk extérieur. dañuy concentré wu fii ba pare fii mooy base bi. Mm-hmm. dañuy concentré wu fii ba pare jaay fii. fans yi santi ne album bi génn na donte dañuy génne après yóbbu ko sax jaay. ñu soog ko génne. ñu soog ko génne. Mm. ok damay ñëw si troisième album bi dama troisième album bi dox na. waaw man loolu laa gis xaw ma nag thème bi fan la nekk nga teg sa baaraam moom bu foofu moom album bi. dox na mm. lool lool lool. parce que mm. tey boo xoolee. xam musique dëgg. man xaw ma musique. waaw. mais pour xam musique maanaam album Daba Sey bi day dem. ndeysaan waaw day dem mm-hmm. parce que te xam moom tamit foofu fi mu ko waxee. Mm-hmm. da ko tibb ci xolam quoi. Mm-hmm. parce que xam na musique bu baax. donc nga ñëw album bi def ci huit titres. pourquoi nga doo ci huit titres yi. bi six la am. bi damay def huit titres. waaw war nga wane ni xam nga mag màgg war naa am daal. donc c'est normal de titres. Mhm. parce que première six deuxième 6 donc on a on mhm. surtout premier album, man album par trois ans la nuit. trois ans Ouais, mais bi trois ans donc un an. Mhm. de plus ngi mais huit titres. mais huit titres est-ce que. album bi si topp boo ko deful dix dañuy mettre. xanaa moo ne bii neuf titres la woon sax. Mhm. bii nii neuf la woon. neuf la woon man maa dindi benn bi denc ko. Mhm. mais neuf titre la neuf titres damay woy di woy di woy di woy di woy di woy ba mu nekk neuf titre ci mhm. rendre ma compte sax ni neuf laa def mooy bu ko nekkal neuf mooy làmb ji. Ah, waaw waaw waaw. booy xool bokkul ni ci album bi dama ko denc. waaw. dañu seetlu ni artistes yu bëri fii Sénégal yu bëri dañ leen jox texte. Mhm. ñu way. Mhm. est que yow ci sa album huit que ay textes yu ñu bind jox la wala yow yaa toog ak sa njëgënaay bind say texte way ko. waaw bii nag moom man ak sama jëkkër rek ñoo ko liggéey xam nga benn lañu sama jëkkër mooy man maay moom. donc moom daf may jàppale ci texte yi. Mhm.

Euh, ñu bëggoon xam exactement comme Daba Seye bi mooy première fois muy def événement pourquoi mu bàyyi ba troisième album soo ko def événement ah Junior bul fàtte nag lu jot yomb. waaw parce que gars yi nee nañ <laughs> Daba Seye xam na ne album bi moo gën a dox moo tax mu album. du <laughs> loolu sax nag gars yi wax nañ loolu de. non juum nañu nag parce que xam na album bi la gën a sentir. <laughs> moo tax mu indi événement bi fi juum nañu juum nañu nag. Mhm. xam nga nit ki des fois day bax nga jékk ba ci yag rek di yengu ci dara. toog ba ci yàgg nga natt sa bopp lu am solo la. juddoo ci réew jàpp nga ni defoo fi dara lu ñaaw nga juddoo ci réew nekk fi ak say maas comme li olof di wax bu sa moroom yëpp jare bay mm-hmm. boo jarul bay rek njëgu bay nga. <laughs> waaw loolu am na. waaw dafay baax yenn saay nga xool nit ñi seen bëgg-bëgg ak seen ngëm-ngëm fan la toll ci yow donc moo waral ma def. album bi accompagné ko ak événement premier anniversaire loolu la mais du album bi dafa dox moo tax. ah gars yi ne album bi <laughs> gars yi ne daw fi baax baax parce que événement bi moom album dox moo tax mu indi foofu événement booy xool yombul de génne album 17 jours la rawante ak événement bi. yombul yaakaar naa ni fii moom booy xool. bariwul ñu ko fi def de. ñi ah, ko ñeme bariwul. ah ñi ko ñeme bariwul. waaw waaw gis nga. artiste bi génnee ba paase rek ni mu ko génnee. waaw soirée de dédicace la def. gis nga gis nga ni ñuy defee <laughs> dama ñëw bàyyi benn distance teg ko fa. waaw affaire bi dox. Hmm. doy na waar de. doy na waar moom ah. waaw sant rek. Ah. <laughs> sant rek. mais kan moo ne sa ginnaaw actuellement parce que gis nañ ne dañoo gis benn benn benn évolution bu am. sa uh-huh. album bu njëkk bu bu njëkk bi stop topp ak bisu toppaat am na évolution bu am ci diggante boobu da nga fi changé staff wala nu mu demee noonu wala ci li nga nekkoon nga nekkoon ba tey waaw xam nga nag man li ma la wax léegi rek li wax ne nit da ngay am kilifa waaw lu am solo la ca nangul ko déggal ko am na solo xam nga ñun ay jigéen rek lañu suñu xel yi du mat du ñu nekk ay nit normal mais boo amee koo xamante ne doy na la lépp yow da ngay dem ba man nelaw rek laay def damay tëdd rek di nelaw rek bu ma ma nekkee ci album gis nga fi ma fekk may tëdd fi fi ma fekk léegi ma tëdd di mhm, nelaw mhm. su ma nekkee ci album dinaa concentré wu ci album bi su album bi génnee dinaa topp promotion bi mhm. mais bu yooyu yëpp weesoo man damay tëdd ban ni ma lii rek nga war a def amul lu may defal sama bopp donc sama jëkkër moom dafa taxawee ñaari position ci man jëkkër frère bi ko ñetteel mooy di jàppale nit ca yàlla tax. donc xam nga Sénégal producteur amatu fi. donc du ma ne artiste laa bu kenn soxlawul parce que ñi fi nekk ñëpp jot nañoo léewtoo ak man. mais ku soxla Daba Seye boo jaarul ci Mor Mané wala bëggoo cee boole Mor na la leer ne moom Daba Seye mënoo ko am. Mor Mané mooy. sama jëkkër. Mm-hmm. c'est vrai na. xam nga. parce que dëgg la musique la ñu wax. Mhm. showbiz. mais tamit ay jigéen lañu bu ñu fàttee loolu. ci nit da nga war a am kilifa comme loolu wax léegi. booy xool xar mi am buum xar mi amul buum. bi bi am buumay gën a suur saa su ne. waaw dafay baax nag yenn saa yi nga am koo gëm jox ko sa lépp ca doyloo ko. Mhm. xam nga donc boo xoolee boo amee manager ci biti. nga jox sa jëkkër. mu gën la bëgg li ngay def gën la ci nangu frais xaalisam gën la ci nangoo def lépp macha allah mm-hmm. donc kooku danga koy gëm man loolu moo ma dal ci sama jëkkër mm-hmm. bu nekkee Europe mi ngi xool nan la ñuy lijjantee ba dem jouer ji bu nekkee Sénégal ci lay gën a yëngu sax que bu fi nekkul. parce que man lépp mënuma ko lijjanti sama bopp. mais est moom mi ngi lijjanti. soirée yi ngay joué est-ce que yaa ngi joué ay soirée ci kii. waaw bientôt inshallah ma ngi lay wax né dama amone bébé. waaw waaw mais comme album bi génn ñu joggé ci événement gis nga defaguma ben sortie mhm. après événement bi donc système la. waaw waaw. <laughs> xam nga wala may la instant <laughs> bi xaw ma si nekk mais dox na. <laughs> non c'est vrai. Hein? système la donc mënoon nañu def euh, événement bi une semaine après ñu def dara. mais booy xool bientôt moom un mois ma benn sortie ci benn télé yow mun naa ne yow yaay première euh, sortie bi ma def nii sax. ah man nag damaa yàgg nag. ah yow da yàgg yow donc yooyu yëpp laa sóoraale. Uh-huh. waaw mais en tout cas tepp tepp daal moo gën yu ret ndànk rek.